wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ayyuha alladina amanu ittaqu llaha xaqa tuqaatih wala tamuutunna illa wa antum muslimun ya ayyuha annaasu ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wattaqu allah alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba ya ayuha alladina amanu ittaqu allaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa sharra al umuuri muxdataatuha wa kulla muxdatatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar ayuha al ixwatu wal axawaat assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi jiital sant suñu boroom tabaraka wa taala di ko dimbandikoo di ñaan mu jéggal nu suñuy bàkkaar te musal nu ci suñu ayu bopp ak suñu ñaaw tee fi jëf di seede na amul benn buur bu yeyoo jaamu mu dul suñu boroom tabaraka wa taala di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ab jaamam la di ndawam gannaaw bu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di sant suñu boroom mi nu may nu daje daje boo xam ne cëlam la tàbbi te mooy di fàttalante wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin ñuy ñaan suñu boroom mu jariñ nu ci jariñ bi bunt bi fàttali bi jëm mooy al islaamu silatun bayna al aqidati wal ibadati wa suluk maanaam lislaam ab jokkoo la bu nekk diggante pas-pas bi nga xam ne nit ki da koy fas ci xolam ak jaamu yàlla yi muy jëfe ci cëram ak jikko ak melokaan ak doxiin yi war a feeñ ci moom te pas-pas boobu ak jaamu yàlla yooyu di ko def ci moom jokkoo bi nekk diggante ñett yooyu muy al aqida wal ibada wassulu benn mënu cee dem bàyyi moroom ma su ci benn manqué rek li muy tekki mooy ya des nekkuñu fa kon loolu ci la waxtaan wi jëm al islaam silatun bayna al aqida wal ibada wa suluk ngëm yàlla gu dëggu su saxee ci ab xol faw ay jeexitam day feeñ leer nañ ci bitti feeñ te la nit ka di jaamoo yàlla waaye feeñ ca na muy jëflantee digganteem ak ay moroom yi bindeefam feeñ ci doxinam muy comportement am pas-pas boobu sax ci xolam daf ciy feeñ jullit boo xam ne pas-pasu tawxiid dëgër na ci biir xolam itam faw dana deñ dana sori lool pas-pasu bokkaale ak melokaan ak jëf yi nga xam ne ñi bokkaale dañ koy def kooku am pas-pasu tawxiid dana sori lool melokaan yooyu boo gisee ne ñu war a waxtaane bunt bi mooy suñu seetloo relation sociale yi nga xam ne moo am muy jëflante bi nekk diggante nit ñi ci jamono yi nuy dund dañuy gis ne lu am ak jaxasoo la lu am ay yëngu-yëngoo ki xew-xew yu tey xew la yoo xam ne yu fees la ñuy gis ne itam mbooloo yi muy société yi yi nga xam ne ay jullit ñoo ca nekk dañuy gis ne lool lu ca bari ci seen wàllu doxalin dañuy sori njub gi nga xam ne moom la lislaam jàngale loolu ne bu boobaa day tegtale ne loolu màndarga la ci sori gu ñu sori itam pas-pas bu wér bi nga xam ne moo war a jeexital ci ab dund war a jeexital ci jaxasoo bi muy relation yi nekk ci diggante nit ñi ndax dafa am jàppaloo gu dëgër gu nekk diggante pas-pas ak jaamu yàlla ak jikko wala nga ne melokaan wala nga ne doxin li ko suñu borom tabaraka wa taala misaale ci garab ni nga xamee ne reen ya ca biir suuf dañoo jokkaloo ak banqaas yeeg xob yi ci bit waaye dañoo jokkalooy ak meññet ma muy meññ lu xew ca reen ba rek day daal di feeñ ci xob yi te gis xob yi di lax bu fekkee dañoo dagg reen ba donte dañ koo suulaat ba kenn gisu ko soo xoolee ab biir mu feeñ ci xob yi bu ca meññet nekkee itam mu commencé feeñ ca meññet ma noonu reeni garab nag di jeexitale ca xobi garab ga ak banqaas ya ak meññat ya noonu la pas-pas di feeñe moom itam ci doxeenu nit ki i jaamoom ak i jëflante wa tax suñ boroom joxe ci misaal ci suurat ibrahim ne daraba allahu matalan kalimatan tayiba ka shajaratin tayiba ka shajara dafa mel na garab asluha saabit wa faruha fi sama tu'ti ukulaha kulla xiinin bi isni rabbiha wa yadribu allahu al amthala linnas laallahum yatadakkaruun mu ne kaddu gu teey googu di laa ilaha illa allah muy kaddu tawxid nee na suñ ko fasee ci xol misaal ma day niroog misaalu garab goo xam ne reen ya dafa dëgër asluhaa saabit dafa sax dëgër waaye banqaas ya muy li mën a feeñ ci bitti day fés lool jëm kaw moo tax mu ne wa faruhaa fi sama waaye meññat mu muy meññ itam day neex moo tax sax mu tudde ko ëqluha ndax du meññat mu nekk lañuy lekk meññat mu nekk moo neex waaye suñ ne ëqluha nag mooy meññat muñ mën a lekk la bañ tudde ko sax ak lekk far kon misaal la ci jullit bi ni mu war a mel bu pas-pasam dëgëree ay jaamu yàllaam rafet ay jikkoom itam dafa war a rafet ñëpp sawar ci jëflanteeg moom jëflanteeg moom neex ni meññatum garab googu neexe yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ñett ku mu nekk ci yow da nga mos da nga yëg neexi ci ngëm yàlla ci sa xol ngëm yàlla dafa am xalaawa dafa am neexi boo xam ne boo ko xasee yëg ci ngay mën a dékkoo bépp coono boo xam ne ñi ngi la koy teg ngir yàlla ko ci ngay mën a muñee bépp boo xam ne ñi ngi la koy xañ te sa ngëm yàlla gee tax neexi ci ngëm yàlla li ngay yëg mooy tax loolu ñu lay xañ du metti ci yow coono biñ lay teg itam du metti ci yow da ko mën a muñ mu ne ñett yooyu mooy nit ki dem ba yàllaa ko yonentam gënal ko lu dul yàlla ko yonent yàllaa ko gënal ko ku gënal sa bakkan ndax jullit ñett la yore ngëmam maanaam diineem bakkanam alal yooyu nga yor su fekkee da ngaa toll ci xat-xat ba yépp mënuñoo demandoo wala ñu di la dàq ngir bëgg a nangu diine ji na nga njëkk a leen alal ji bu ñu la naree na nga leen sànni sa bakkan diine bakkan bi moom foo ko ñàkk rek diine ji raw la julit noonu la war a xamee yooyu mu yor valeur yi ni ñu ëppaate ñett yi nga yor mooy sa diine sa bakkan sa alal diine ci gën a foor bakkan bi topp ci alal ji moo mujj waaye da gis koo xam ne nag alal ji la jiital alal jeeg bakkan bi la jiital diine ji mooy li gën a fegg pour moom la muy njëkk a sànni moom mooy diine bi kon kooku xamul valeurs yi mu yor parce que soo yoree mbir te xamoo valeurs yi ni ñu toll ngay wàññi bagage wala li ngay tukki sax nga yegg koo xam ne ne la bagage bépp mënta dem il faut nga am loo ci baax boobaa da xool yi nga xam ne moom taxu a am importance noonu wala boobu yàkkamti noonu waaye yi nga xam ne mënoo tàggoog moom foo toll da nga koy soxla yooyu moom doo ko fi bàyyi kon nag ak début itam sooy wàññi bagage wàññil alal gis nga Suhayb ar-Rumi ba muy gàddaay di jógee Makka dem Madina te yëpp ay daf ko ne nag yow da nga am ku fi woote diine nga ànd ak moom di kontar sunu diine yi ak sunu xërëm yi kon nag sa alal ji moom du def mu ne leen fekkee alal ji rek tax ngeen di ma def bay boo ngeen jël ma nga barab sàngam ma denc bi mu eggee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek fekk na jibril jiitu ko fa ba wàcce aaya bi ne wa min annaasi man yasri nafsahu ibtigaa mardatillah am na ci nit ñi kuy jënd boppam parce que dafa jënd boppam alalam la leen jox pour sooyee boppam dem man yasri nafsahu ibtigaa mardatillah te da koo def nag ngir sàkku ngërëmul yàlla tax mu muñ alalam lépp te alal ji mën na ko amaat mën na ko amaat kon jullit lan la war a def kon di sànq sa diine ngir bëgg a wut alal wala ngir bëgg a aar sa bakkan sa bakkan bu demee bay jar sa diine kon bay boo nga bàyyi bakkan bi def ndax borom bi dana inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yàlla jënd na ci ñi gëm yàlla seen bakkan ak seen alal ban prix la leen fay mooy antenne kon nag njaay nag ku bëgg a jot la ngay jënd dafay nangoo joxe njëg ga waaw waaye ne borom bitig bi àjji lee jox ma ba pare mun la ay fayal nga ne ko nag du ma fay te bëgg na ma yóbbu marchandise bi ak ñi ko bëgg dugg aljanna te yàlla nag nee na moom alal ji ak bakkan gi la koy jaay te mooy nga desee diine ji rek diine ji moo lay dugal aljanna soo joxee alal ji joxe bakkan bi ba mu des léegi kon diine jekki def ci moo lay dugal aljanna ne ñett yooyu yàllaa ko yonentam gënal la lu dul yàllaa ko yonentam ñaareel ba sooy bëgg nit doo ko bëgg lu dul ngir yàlla soo koy bañ it doo ko bañ lu dul ngir yàlla ak it la delloo ci kéefër ni ki nga bañee ku la jël di la sànni ci safara parce que kéefër weddi yàlla ak kenn ci mas la ak lu mu la jege jege la jege jege muy way jur bu la bëggoon a dugal ci safara doo ne sama way jure ma bëgg a dugal ci safara kon damay nangu taalub taal bëgg la ca dugal ak lu mu la jege jege ci mbokk doo dëggu loo man di wut ak walla da nga ko def loo yaakaar ne dana la ca musal moom da nga ko def te nag ku la bëgg a dugal ci kéefar wala mu bëgg la dugal ci bokkaale moo koy jàpp ci sa loxo jëme safara ñooy moo tax muuminu aali firawna ba waa ja gëmoon ci jamonoy firawna li leen yaa wa yaa xaw mi maa li ad'ukum ila najaati wa tad'unani ila naar waaye yéen sama mbokk yi lu tax man ma di leen woo bëgg ngeen mucc yéen ngeen di ma woo jëme safara ah mel na dañ ne ko waaw ana safara ñun koy jëmewuñ la safara mu ne tad'unani li akfura billahi wa usrika bihi maa laysa li bihi ilm yéen a ngi may woo pour ma weddi yàlla bokkaale ko te loolu ku la ko def loolu jëmee la da safara kon moo tax mu ne nga bañ a dellu ci kéefër gannaaw bu la ci yàlla musalee comme ni nga bañee ku la jël di ci safara nee na ñett yi daal fu mu ne ci yow yëg nga neexi ci ngëm yàlla kon mbooleem jikko yu rafet yi ngëm yàlla mooy tax nit ki mën koo def mbooleem jikko yu ñaaw yi itam ngëm yàlla mooy tax nit ki mën koo wax ñu jëlee ci abi hurayra radiallahu qaala nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa yazni azzaani xiina yazni wa huwa mumin wala yasrabu alxamra xiina yasrab wa huwa mumin wala yasriqu xiina yasriq wa huwa mumin wala yantahibu nuhbatan yarfau nnaas ilayhi fiiha absaarahum xiina yantahibuha wa huwa mumin muttafaqun alayhi yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na njaalookat bi jamono ba muy njaaloo moom gëmatul yàlla ma ne ngëm yàlla gu dëgër giñ soxla gii mën a dox digganteem ak njaaloo nekku fa su fa nekkoon du njaaloo su fa ngëm yàlla nekkoon dëgg du njaaloo néewuñu nag su njaaloo nekk na bi yéefar ndax ci aqidatu ahli sunna wal jamaa moom du ñu takk xiir nit ki ci bakkaar bu mag bu def boo xam ne eggul ci bokkaale waaye nag booba li mu bëgg a wax muy ngëm yàlla gu mat gu dëgër gi mën a sowee nit ëllëg ci safara yoratu ko ndax mi ngi def lu koy yóbbu safara kii def lu koy yóbbu safara li mel ne ki garab goo xam ne rek xob yi dafa ruus kenn du ne amul garab waaye yoru garab bu mën a bu mën a tegu naaj garab goo xam dafa ruus booba toogee naaj bi tàngi jër xam kenn du ne amul garab ndax lii moom garab la waaye amatutu xob xob yi ruus na ba jeex ah loolu la kenn du ne nag amoo garab boo ko suuxasaatee xëy na mu jedduwaat boo ko suuxasaatee góorgóorluwaat mu jedduwaat mooy ki nga xam ne ngëm yàlla ruus naa ruus a ruus a ruus ba amatul xob moo koy dugal ci carte googu moo koy dugal ci sàngara soosu moo koy dugal ci sàcc moo koy dugal ci yëpp kenn du ne nag ab yëppar nag mi ngeen garab ba tey waaye garab gi rek ci dee la jëm moom waaw garab moom bu continuer mel noonu rek day mujj dee nag bu tuubee la doon yàq garab gi yëpp mu sorale ko ko wut dox mu sell te mooy alxuraan ak sunna di ko sottiwaat te garab ga garab gi day jeppiwaat moom la borom bi ne wa anibo ila rabbikum del si leen del si leen ci yàlla gis nga del si leen la taqnatu min rahmatillah waxal ma sama jaam ñi nga xam ne dañu ëppal ci tooñ seen bopp ci ay bàkkaar nee leen bu ñu naagu ci yërmande yàlla koo xam ne mooy yu na ko ba de man saye man bàyyi boo rek ma continuer xam naa sawara rek laay def borom bi ne dina nee leen bu ñu naagu inna allaha yaxfiru dunuba jamian gis nga foofu inna allaha yaxfiru dunuba jamian loolu fii ci adduna adduna moom bàkkaar yëpp la yàlla ba ci bokkaar yëpp lay jéggal boo gisee mu ne laa yaxfiru an yusraka bihi kooku àlaxira la ko deewaale waaye fii ci adduna moom bàkkaar yëpp yëpp yëpp lay ci boppam leneen ñu baree baree bari ci saxaabatul kiram am na ci ñoo xam ne ci sirk la nekkoon waaye ba ñu tuubee tuub de sell dañoo daal di bokk ci jullit ya gën a kawe mu ne nag waaye wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu dellu ci leen ci yàlla jébbal ko seen bopp neenu xable an yatiyakum al azab summa la tuntor balaa mbugal a ñëw moo xam ne kat bu boobaa kenn du leen ca mën a wal kon nee na nit ki jamono bi muy njaaloo amatu ngëm gu mat jamono bi muy naan sàngara amatul ngëm gu jamono bi muy sàcc amatul ngëm gu mat jamono bi muy siif jël alal joo xam ne ci doole la ko jële ñëpp di ko xool ñëpp soxla ko waaye xëy na moo leen ëpp doole kenn mënta teemu jël ko nee na jamono ba muy def loolu moom itam gëmatul yàlla xam ne dooleem pouvoir am la utilisé ba siif nit ñi kon jikko yu ñaaw yooyu yëpp la muy àndal mooy ngëm yàlla gu mat parce naa nekk sax bu wér boo xam ne bokkaali nekku ci waaye nag mu doyee di ndax pas-pas iman day dolli koo ko wàññi ko day dolli koo ko wàññi iman bi mu yor baax na waaye dafa wàcc dafa wàcc a wàcc a wàcc a wàcc ba la ca des léegi mënatu koo tax a def liñ digle mënatu koo tax a bàyyi liñ ca def day dolli ko ci topp yàlla day wàññi ci boy yàlla kon pas-pas bi nga xam ne moo mën a ànd ak def liñ la digal bàyyi li ñu la tere mooy pas-pas bi yonente bi alayhi salatu wasalaam yoroon ak ci saxaaba moom la ko borom bi ne fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw nit ñi suñu gëmee lu mel ne li nga gëm aqida bu mel ne bi nga yor yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu ko amee gindi ko waaye ku ko amul doo mën a gindi ko amul beneen pas-pas bu la mën a gindi boo wuteeg yonente bi alayhi salaatu loo ci yokk wala loo ca wàññi booba pas-pas léegi duutu la mën a teg ci yoon wu jóg ba tax mu ne wa in tawallaw fa innamaa hum fii shiqaaq bu ñu la wanee gannaaw nag wuuteeg yow ci pas-pas yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam boobaa ñoom itam ci ŋaayoo ko juuyoo ci la ñuy dëkk moo tax imaam ibnul qayim di wax ne kooku téere bi mu tuddee tariqa xijra tey mu ne jullit ñi ñoom ñëpp ñoo ànd di wax ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nee na jullit ñëpp koy wax waaye nag nee na ni ñu yo wax wax gi moom nee na ñëpp ko mën a wax waaye nag dañoo rawaate ci xam li ñuy wax loolu ak itam taxaw ci àqi li nga wax ci lu feeñ ak ci lu nëbb nee na rawaate googu mbir la moo xam ne yàlla rek a xam nu mu toll kon ay nit mën nañoo bokk di waxandoo laa ilaha illa allah di waxandoo ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag ni ñu rawaatee ci xam ko nag xam li ñu wax engagement bi mu leen jëlloo ak ak yi mu am ñu war cee taxaw dañ cee wute lool loolu moo tax dana am laaj boo xam ne ñun ñëpp danañ ko war a laaj ne waaw bu fekkente ne pas-pas jeexit bu mel nii la war a def ci nit ki ci wàllu jaamu yàllaam ci wàllu jikkoom ci wàllu doxalinam ci wàllu jëflanteem waaw lu tax nag jeexit jooju gisuñu ko lu ëpp ëpp ci mbooloom jullit ñi li ëpp ci jullit ñi soo jaxasoo ak ñoom melokaan boobu ñu wax ne ngëm yàlla da koy def ci nit ñi lu ci baree baree bari doo ko gis mën nga li ne gis jàkka yi mën ngaa gis ñu woor ñu ne dañoo woor gis nga màkk ni nit ñi baree fees dell mën nañ fa bari lool waaye nag soo demee ci wàllu jëflante bi dem ca wàllu caaxaan yaag koma ñu feesat fa dell te borom bi dane woon wa ida marro bil lu mënta jële njariñul adduna lu rew mënu ca jële tuyaabay alaxira loolu lu ko jullit mënta jële rek neen la pour moom fa taxaw bu dee wax bu mu ko déglu nee na bu dee jëf bu mu fa taxaw wa ida samiu laxwa aradu anhu wa ida marro bil laxwi marro kiraam benn muy lu ñuy dégg wala muy lu ñuy def bu dee lu ñuy def nga romb ko marro rombal rek yow kiraama nekk nit ku tedd jàll dem sa yoon bu dee lu ñuy dégg la wa ida samiu laxwa soo ko déggee aradu anhu nga dumóoyu yooyu nag ca mbedd maag ba ci médias yi ca sa biir kër télévision ba day andi laxu da koy wax ak di ko wane kon loola war na saa yuy génn aarado anu nga dumóoyu ko mooy nga fay ko nga fay ko waaye soo ko mo muy jàll ga di ko seetaan wala sañ njaboot di ko seetaan yow kat kon la borom bi digle woon ne ci ay caaxaan bu leen fa taxaw ndax ba muy melal ñi gëm yàlla daf ne xad aflaxal muminuun allazina hum fi salaatihim xaasiun mais lu mu ca teg wallazina hum anil laxwi muridun ku gëm yàlla ñetteelu melokaanam mooy day du mooyu ay caaxaan am fop ak i caaxaan lu dul jël jur njariñul àdduna lu teew loo xam ne loo mën a jariñoo la ci lu lew wala mu jural la tuyaaba jooy am ëllëg loolu jurit waru caa paase taam bu ca nekkee rek laxul kon melokaan ba suñ borom xam ne mooy melokaanu ku gëm yàlla moom nekkatul ci moom kon dañuy gis ne soreyaatoo am na lool diggante li ñuy déclaré ci pas-pas ci ñu bari ak li nga xam moom la ñuy ci biti yu gis ne jikko yu baree baree bari yoo xam ne delluwaay ba mi ngi dellu ci ngëm yàlla gu woyof wala sax ngëm yàlla gu ñàkk bu fa amatul sax far wala bu fa nekkee mu woyof loo yonente bi alayhi salatu wasalaam toog la bis ba yàgg mu ne wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa mu ne giñ naa ci yàlla ne gëmul yàlla giñ naa ci yàlla ne gëmul yàlla ba muy ñetti yoon xii la man ya rasulallah ñu ne ko waaw kokkan qaal alladi laa yamanu jaaruhu baatiq lor jum leen di lor amul benn wattandiku bu muy wattandiku lor doom aadama ci làmmiñam ci bëtam ci loxoom ci léppam mooy juum ci dara ba ñëpp ko ragal ñëpp a koy moytandiku nee na kooku gëm gëm yàlla bu wér bu mat gu mën a dox digganteem ak loola lekkatu ko danañ gis ne njàmbat yi bari na lool ci jamono jii ci jikko yi nga xam ne dafay yàq surtout ci wàllu jëflante yi yu bare bare bari da nga leen di naw ci seen wàllu li ngay gis ci loo yaakaar ci ñoom ci pas-pas bu wér ak itam nu ñuy góorgóorloo ci diine ba tax nga bëgg a jëflanteeg ñoom moo xam ci wàllu dencante la may leen soxna wala nga bëgg koo wut ci ñoom wala ci wàllu ab liggéey embauché leen ñu liggéey wala nga jox leen alal ñu liggéey ngeen war koo tëral ci ay sart yooya nga dox ca tuuti rek am ca mbett moo xam ne day mujj sax yàq la jiitu woon ci ak mbokkoo ak jàpp seen diggante sax loolu daf koy far yàqaal te ba ngeen jeexagul loola kenn ku ne bopp nga jàppe sa bopp jàppe ko sa moroom waaye ba ngeen demee ba dugg ci loola rek kenn ku ci nekk wala am na ca koo xam ne moroomam am na ca mbetteel moo xam ne foofu kóol yooyu nag yi koy waral lu bari la ndax pas-pas bokk na ci buñ defee ne bokkaale rek mooy yàq pas-pas waaye ak taalluq bi dunia mooy aju ci adduna bëgg adduna bëgg adduna ba mu ëpp loolu bokk na ci li nga xam ne dafay doyee del pas-pas dafay doyee del pas-pas ndax day tax doon na ko def benn sacrifice dana yàlla dafa bokk ci li koy dundal nag di def sacrifice surtout ci li nga am di joxe ci li nga bëgg lan tanaalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bu ngeen mën a amul mbaax li fee fekku leen lu ngeen soxla ngeen di ko dépense parce que bara ngaa mën a sàmm alal da ngay dem ba alal notatu la alal na na ngay def ba notatu la mooy da ngay sàmm am loo soxla lool di ko joxe xam nga ki am lu mu soxla lool moom ko joxe ko ngir yàlla bis bu téyee loolu xelam du xalaat ci def yàlla di ndax lim moom sax mën na koo ñàkk ngir yàlla kon nag lim moomu taxul ñuy wax ki mën a muñ li nga moom jàng nga muñ li nga moom kon muñ li nga moomut da la yomb mais su fekkee mënoo muñ nag li nga moom moom mënoo ci joxe dara ngir yàlla loola bu boobaa bis bu loo moomul duggee ci sa loxo itam doo ko mën a muñ ndax da ngaa tàmm ñàkk a muñ da tàmm ñàkk a muñ ndax doomu aadama dafa am ay yu ñu ko bindaale yoo xam ne diine koy faj wa tuhibbuuna al maala da ngeen a bëgg alal xubban jamma mbëggeel gu ëpp ëpp ëpp doomu aadama kese naturellement dafa bëgg alal waaye nag diine koy defar nag waaye ñu def borom bi naan wa man yooqa soxa nafsihi fa ulaika humul muflixuun ku faj bëggee boppam bakkanu doomu aadama dafa bëgg dafa égoïste mbir bi naan man rek man man man rek maa koy yeyoo loolu nag jàngoro la bu ñuy faj diine koy faj borom bi nee na ku faj jàngoro jooju yaay tax wa man yooqa soxa nafsihi fa ulaika humul muflixun kon nag jikko yooyu nga xam ne dafay wuute ak li ñuy déclaré ci ngëm li koy waral mooy pas-pas boo xam ne dafa baaxul wala dafa doye ba gis yonente bi alayhi salatu wasalaam bi muy wax ci góor guy bëgg ci soxna mu ne ida raaytum ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqa fa sawijuhu xam nga nit ki mën a gis nga ñaar la tudd foofu koo xam ne gërëm ngeen diineem xam nga diineem mooy li ngeen di ci kaw léegi di ngi dem jàkka jëkke ñëw ah waaye nag des na jikkoom nag bul ne rek gis garwaay bi gërëm na jàkka ji fa laay dajeeg na ngeen nattu jikko ci na ngeen nattu jikko ci ba xam diine jooju muy wane ci kaw bu sellee te yàlla rek tax te pas pas lal ko day feeñ ci jikko ci waaye nag bu fekkente ne nag loo muy def na rek ci kaw ñettal la parce que naa fekk day def lu mel noonu déclaré ngëm mën na dem ci jàkka jëkka ñëw waaye nag fa muy feeñe nag mooy soo jëflante ak su jëflante amee rek lay xew bu baaxul wala bi wayas bi nga ne nag mooy tax jikko ju mën du mën a am na ay mandarga ba ca mooy ko xam ne dafa bokk ci pas-pasam mu gëm ne doomu aadama bi amul mbaax wala ñu yaakaare ko ak mbaax wala mu am xam-xam wala mu am daraja wala sax mu bokk ci aw askan woo xam ne askan wa dafa rëy ci bëti nit ñi te milieu ba ñuy dund loolu dana ko eggale ci daraja boo xam ne dana tax mu gën yeneen moroomi jaamam yi ci nattukaay yooyu rek ci ne moom dafa baax wala an baax lañ yaakaar ci moom wala xam-xam wala daraja wala aw askan tax mu eggale ko ci daraja boo xam ne day mën a sax di jëfandiku ci jaam yi seeni wërsëg mën naa yokkal nit wërsëg mën na ko wàññi mën naa guddal fanu nit mën na koo gàttal mën naa texeel nit mën na koo texee del maanaam daal sañ-sañi suñu borom yi tabaraka wa taala daf koy yore ku fasaale loolu ci sa diine jàpp ne am na fu nit di egg foo xam ne day egg ci pouvoir boobu ci yàlla da koy am ngir noonu mu mel loolu ku ko yor pas-pas boobu nga yor du la tee def yi ñuy tere du la tax a def itam yi ñuy digle ndax du bu wér boobu la borom bi wax ne wa yaabuduuna min dunillah maa laa yadurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluuna haulai sufaauna inda allah maanaam nomee ay ramukat nomeel yàlla ay ramukat waaw moo xam dañoo nomeel yàlla ay ram moo tax suñu borom ne xul atunabbiuuna allah bi ma laa yaalam fi samawati wala fi l ard waaw ndax yéen da ngeen di yëgal yàlla lu mu xamul ci asamaan ak suuf si ma ne diw mii daa nar a ramm yowmal xiyaam lu bari te yàlla xamagu ko waaw yéen a ko nomee yéen yàlla ne waaw da ngeen may nomeel ci sama adduna bii ay place yu ngeen jox ay nit yoo xam ne man yëguma place yooyu ah gouvernement bi nag soo demee tey ne la kii ci ministre la dooga fi benn waay ci ministre ci mbedd bi ne kii ministre la jox leen ko ci oto yi ministre la ah, du sotti moo tax borom bi nag xool waaw nee leen atunabbi'uuna Allah waaw da ngeen di xibaar yàlla bi maa laa ya'lam ci loo xam ne moom xamu ko waaw fii dara mën na fee xew lu yàlla xamu ah, kon nag nga ne haa'ulaa'i shufaa'aa'unaa inda Allah ñii ñoo nuy ramu fa yàlla ñii ñoo nuy ramu ñoom la amal affaire borom bi ne maa kaana li bashar an yu'tiyahu llahu alkitaba wal hukma wan nubuwa summa yaqula linnaasi kunu ibadati min dunillah benn doomu aadama sañu ak cër bu ma ko mën a jox moo xam ma wàcce ci moom téere def ko ab yonent wala ma jox ko pouvoir boo xam ne man yàlla maa ko ko jox comme nguur gi joxoon Suleymaan waaye nee na yooyu bu ma la ko joxee taxul na nga ne nit ñi nekk leen samay jaam kunu ibadan min dunillah déedéet walakin kunu rabbaniyin yàlla su la mayee xam-xam may la doole may la cër muy al wilaaya may la cër ci yàlla te wilaaya yooyu la ci gën a kawe muy rubbu wax da ngaa war a jëfandikoo loola teg nit ñi ci yoonu yàlla def nit ñi ñu nekk jaami yàlla jàngal leen ba ñu mën a nekk jaami yàlla waaye ku jàppale ne ko xas am cër yooyu moom nit ñi ci moom la ñu war a topp waaye waratuñoo jéem a xam suñu borom tabaraka wa taala pas-pas bu mel noonu ku ko fasaale bokk na ci lii tax nga jàppale nit ki jullit ba pare te bu ngeen jëflantee nga gis melokaani ku dul jullit rëq-rëq nekk ca fas ko ñaareel ba itam ku jàpp ne teraanga ak mbaax mënees na ko amee rek ci askanu ci koo xam ne dañ koy melal ci mbaax na ñu ne diw mi baax na teggee wuñ ko dara lu may diwoo ko jur rek présentation bi yépp daal ak dara ji ko jox yépp soo laajee yan qualification la am ñu ne diwoo ko jur rek loolu mooy qualification yi kon moom te diwoo ko jur moom yépp diwa leen jur loolu mooy départu course bi course bi mooy kenn ku nekk nga jub yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa loolu ñëpp a teem ñëpp te bi ngeen di judd yi nag amu leen xam-xam wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna shay'an xam kon ñëpp ci niil lañ taxaw ci rëdd bi ci départu course bi course bi ñëpp ay soxla suñuy bëgg a départ comme nag léegi kenn ku ne dayeg bàyyi la jub kenn wàccewul ci asamaan si wala nga génne ci suuf si am nga nay am nga bàyyi ba ci yonent yi xam-xamit kenn indiwaale ko fi da koy jàng kon ñëpp a tolloo borom bi nag ne aywa kon saabiqu course leen aywa saabiqu départ leen saari'u gaaw leen nag bu ngeen départ xelu leen fu ngeen jëm ila maxfiratin min rabbikum foofu mooy teerukaayu course bi dem ba yàlla jéggal la say bàkkaar jéggal la say bàkkaar parce que a dugg moo ñu jéggal la say bàkkaar parce que loo am am ci tuyaaba xam nga alal am alal mi ngi tàmbalee ci bañ a yore bor soo yorewul bor juróomi dërëm sax baax na alal la juróomi dërëm yoo xam ne yaa ko moom lu la neex jënd yëfi kenn nekku ci ah li ngaa am dara waaye ki yore bor moom amagul dara amagul dafa gis bu bëree bëri jeexal maanaam ñu ne ba nag junni ngay liggéey di am bénéfice am maa ngi am amagul naa ñaar téeméer denc naa ko te fayagoo junni amagoo dara naka noonu itam ay bakkaar loolu la mel maa ngi julli maa ngi woor maa ngi attaqué te ay bakkaar doog nga fa nekk amagoo dara gis nga moo tax borom bi maxfira rek lay wax ñaan leen ak njëggal yàlla su la xasee jéggal say bakkaar loo desee ci tuyaaba rek mu baax loo desee ci tuyaaba rek dem yow amatul bàkkaar boo amatul bàkkaar moom loo am ci tuyaaba rek dem xanaa kay daraja bu mooy kawe wala mu bañ a kawe waaye moom da nga mucc moom boo amatul bàkkaar moo tax mu ne course dina jëm ci amul jëggal saabiqu ila maxfira xam nga nag kon kuy course jëm ci dara defe naa doo course jëm te contraire te mooy di def luy xañ a ngi jëggal mooy ay bàkkaar kon ab julit dafa war a sori lépp lu koy andil ay bàkkaar kon ku jàpp ne loolu muy aw askan rek dana tax nit ki daal di kawe mais koo xam ne moom ba mu déparé ci course bi déparégul ñu ne bay mu ngeen toog jiw moom jël na première raw na leen ba pare waaw jiw moom loolu man la yàlla xale bu juddu jàngagul defagul dara ñu ne jóg leen màggal ko moo leen gën waaw ñu ne ndax lan ñu ne jiwoo ko jur moo tax waaw ngir gëm loolu jàpp ne kon moo leen gën te defagul dara pas-pas bu mel noonu ko ko fasaale bu ngeen jëflantee mu wor la wala mu wuruj la wala lim fa sa tax mu mën a mu mën a def yu mel noonu yorul pas-pas bu sell bu mën a dox digganteem ak yooyu te buñ ko seetee nag lu baree baree bari ci luy tudd jur yu mel nii dafa raxaale ci seen biir li ko waral lépp nag mooy ñàkk leen a jàngal nit ñi dañoo wuy ci ci woote lislaam wuy ci ña ko doon woote te ba ñu ñëwee jàngaluñu leen lañ leen war a jàngal li ñu war a jàngal alquran ba mu leer jàngal leen sunna yonente bi sallallahu alayhi ba mu leer ñu ànd ak moom di jëfe woote lislaam loolu koo woo ci lislaam te jàngaloo ko nag bu ñëwee yow lay mujj gis yow lay mujj gis yow lay mujj defe ne lim doon wuy si mooy yow fekk da doon wuy si pour nga wan ko mbir ma fa mu ne léegi nag comme mënoo ko dara nag te yaa ñëw leen leen ñëw leen ñëw nga ci bokk nag kon dana mooy ki ñuy wuy si mooy kii ko naka noonu itam di dem ci jibal yi ci faj ay feebar ak li jëm ci ay problème yi problème social nit ki bu amee problème digganteem ak soxnaam wala mu am problème digganteem ak jëkkëram du ko jéem a jaar ci islam waaye lépp ci jibar yi lay dem defe moo ko mën a régler fexeel ba sama soxna si toog fexeel ba sama soxna si bëgg ma yeneen mooy fexeel ba sama borom kër gën maa bëgg fexeel ba bu ma wuti wujj bu ma wuti mu a am compétence yu mat sëkk moom itam ma ngay yóbbu turu directeur yaa ñooñee ca jibare ya ñuy dugal ci xaatim ak ñu kenn xamul defe ne loolu dana tax ñu embauché loolu itam koo gis mu di ko def boo jëflanteeg moom gis te ay wor gis te ñàkk dëggu bu mu la bett ndax fas-fasu njibar googu mu fas ci biir xolam te njibar moom kufru la def ku ko fas moom li mu tekk muy ngëm yàlla nekkatu fa parce que yooyu ngay def moo ko yor yaakaaratoo ko ci yàlla ci ay nit la ko yaakaar kon li muy tekki mooy ngëm yàlla nekkatu moo tax borom bi ne wattabaau ma tatlu shayaatinu ala mulki suleyman wa ma kafara suleyman walakina shayaatina kafaru ndax lan yuallimuuna annaasa sixra mu ne xam ngeen ne jamonoy suleyman nit ñi ak jinne yi dañ daan gisante suleyman yàlla da ko may ngóoru nit ak jinne ñëpp di gisante ñu ànd ci mbedd yi di dox jinne yu dëng yi nag di jàngal nit ñi ak njibar wattabaau ma tatlu shayaatin ala mulki suleyman parce que dañu bari ci jibar yi dañ ne ak yahood yi sax dañuy wax naan Souleymane ab jibar la woon moo fi andi njibar moo tax borom bi ne wamaa kafara Souleymane ndax jibar ku ko def da ngay nekk yéefar te Souleymane moom nekkul yéefar moo tax mu ne wamaa kafara Souleymane walakin shayatina nag muy jinne yu dëng rek parce que seytaane moom mooy ku dëng rek boo xam nit nga wala jinne moo tax ñu alquran wax shayatinul insi wal jinn ñoom ñoo wet ñooy jàngal nit ñi njibar naka noonu bi dafa am force bu ci nekk bu indépendant boo xam ne day jariñal boppam ci lu dul nga ciy am tegtal bu bàyyi ko ci suñu borom tabaraka wa taala wala jóge ci yonente bi alayhi salatu wasalaam lu mel ne garab yeeg suuf yeeg ndox yeeg yooyu yëpp nga jàpp dafa am baatin dafa am secret bu ne ci biir boo xam ne mën naa régler say mbir waaw loolu ci ngay gisee koy takk ay garan jël ab bant dagg ko takk ko nga jàpp ne jëmmi bant boobu dafa am lu muy jariñ wala ku jël xor xor yi di ko wala mu takkal ko doomam wala muy jël ndox di sotti ci buntu këram ne mooy leen di aar kon te gis nga koo xam ne moom ndoxa ko lor yow may jàpp ne ndoxa lay busal moom am na ñoo xam ne moom ndox ak ñu bañ a féet leen lor wala moo lor seen mbokk kon njariñ ak lor ci borom bi tabaraka wa taala lay bàyyi ko waaye nekkul ci nature boobu lenn lu ci rek am na lu mu ko bindee lu ñu ko war a jariñoo doyee ko loola rek bu ne ndox na nga ca naan na nga ca sangu na nga ca faj say soxla waaye bët koo nag ne moo lay indil jàmm moo lay dàqal lor loolu taxu koo jóg bu ca garab ya boo soxlaa bant nga wut ko ca boo soxlaa néeg nga defar ko ca waaye nag nga di ko takk wala nga di ko wékk yooye bu boobaa pas-pas bu baaxul la boo xam ne kuy def yu mel noonu boo jëflanteeg moom gis te lu wuuteeg li lislaam santaane bu mu la def naka noonu itam koo xam ne dafa xolam dafa aju ci adduna adduna la bëgg te itam nanguwut a sonn nag ci ab liggéey pour fàggulu lew xam nga kooku di bëgg nekk ci problème moom bëgg na lu ñuy am ci adduna mu am ko te sabab yi yàlla wax ne jaar leen ci pour am ci adduna nanguwu caa jaar bi daf ne fam suuf dox leen fii manaakibihaa ci kaw suuf ci wërsëg yi wax na da ngay jóg da ngay xëy fam suuf xëyal xëyal xanaa boo xëyee jàng naa tuuti kon man ci bureau a nekk xëyal sa pel ndax moom lekk géeg naan gi moom du xaar kon yow itam boo fi nekkee di xaar embauchement te lekk géeg naan gi soxla yi du xaar moom léegi ci looy looy de ah xam nga yooyu bu mënoon a xaar bañ am salaire doo ko commencé lekk ka naan waaye yooyu moom du du xaar moom bis bu set kon nag bis bu bu set rek war ngaa def dara ndax la lebal moom lekk géeg naan gi moom ak feebar wala faj ak yeneen soxla yi yooyu moom du ñu xaar am nga liggéey amoo liggéey wax nga kon bis set rek defal famsoo fii manaakibihaa doxal ci kaw suuf wapaloo min rësq ka mel noonu nag te nangu wut a def effort yooyu nag te bëggee noonu adduna kooku bëgg adduna googu day wàññi ngëm yàlla loolu moo koy mujj dugal ci di wax lu amut dem ci mbokk proposé ko wax ko soxla yoo xam ne dara amu ca jàmpal ko sama nangam yoo xam ne jullit boo ko wax moom bu ko déggee fokk mu jëm ci dara moonte wax boo xam ne moom ngëm yàlla nga waa ji ngay ngay ngay ngay a wax ko ba noppi nag di ko xool nag ba xam nag dégg nga gëm nga yàlla nag dégg nga sama soxla waaw waaw loolu looy wax nag waaw xam nga loolu moom amul dara loo cay wax ah damaa feebar bi ni nañ ma ordonnance li ma amul lépp jeex na jaay naa nangam lu ne mu dugg ca ah fu nga jéem a def nag su ko defee nag wax yooyu muy wax te amul nag ngir bëgg am dara am na soxla su teew soo xam ne moom mënu ko ñàkk noonu rek ko mën a amee dem ci kenn monte pièce boo xam ne su ko waxee fokk mu jox ko dara moo xam da koy lebal moo xam da koy may loola nag mooy continuer di wàññi ngëm yàllaam di continuer di wàññi ba même bu fekkee amoon na pas-pas bu wér pas-pas ba dëgëratul dëgër bu mën a dox digganteem ak euh, wattandiku tere yooyu amaa nag liy yàq pas-pas wala mu di ko feebaral ba te jiitu mooy taafiilu faa'iliyatil aql mooy nga annulé xel ni mu waroon a liggéeyee fonctionnement xel sa xel da ko annulé liggéeyatul wala sa xel joxoo ko énergie bi mu war a mën a liggéeyee ndax xel itam ci xam-xam lay mën a liggéey appareil la pour mu mën a fonctionner il faut mu am xam-xam mu mel ne appareil yi ku ci amul courant du tàkk bu amul énergie du tàkk bu mu am batterie wala nga branché ko ci courant xel itam nag noonu la mel lu tam xel rëy rëy rëy boo jàngut wala ngay laaj ñi jàng xel moomu du mën a liggéey liggéey bu jub bu liggéeyatul moom xel nag tabbal ci yow pas-pas bu wérul day yomb parce bu xel liggéeyatul rek bànneex ay dox doomu aadama ñaari tànk yooyu la amee benn muy doxee xel wala muy doxee bànneex xel ma itam nag ak njub di ko wammat alquran ak sunna di wammat xel ma moo tax nga gis ña doon dugg safara ñuy dugg safara bu ëllëgee wala yaasu billah lu ñu wax law kunna nasmaw aw naqil maa kunna fi asxaabi saxin buñ doon déglu wax dëgg ndax am na loo xam ne o koo waaye nit ki wax ko mu jub nga jël ah xalaat mënu ca yegg parce que yooyu fi am na yoo xam ne mënoo koo xalaat da nga koy dégg da nga koy dégg nga jël moo tax ñu ne buñ doon dégg nu am xel kon tey dund bi safara ñaareel ba am nga xel waaye xel mi doxale woo ko njubug suñu borom tabaraka wa taala leneen nga jàng loo xam ne moo fees benn ci sam xel njubug yàlla xamoo ci dara xam nga meneen njàng mi ñuy jàng njàngub adduna na waaye suñ borom nee na tuuti la yaalamuuna zahiran min alxayaat daf ne laa yaalamuun daf ne xamuñu dara dem si ne yaalamuuna xam nañ sax zahiran min alxayaat dunia lii feeñ ci biir dund adduna bi moom xam nañ xam nañ i xam nañ lu bëree bëree bëri ci adduna bi mais loolu rek du xam-xam loolu dong du xam-xam kooku xam-xam la fii ci adduna waaye xam-xam dëgg moom al yu lay doon loo xam ne xelam doomu aadama mënu cee parce que yooyu yëpp xel koy tuddee yi yëpp moom ay la yegg yàlla da ko fay def yàlla bi muy andi a defar def na ko ba pare a dem a ngi fi kaas yaa ngi nii téléphone yaa bu yàgg yaa koy doog a trouvé ah lambaat na ci téléphone trouvé naa téléphone maa defar téléphone <laughs> trouvé naa ko dafay nekkoon yii ñu trouvé ci àdduna yëpp dafay nekkoon wa jaala wa qaddara fiiha aqwaataha fi arbaati ayyaam na asamaan ak suuf mi ngi ko dund ji bind ci juróom benni fan ñaari fan yi ci la ko bind ñeenti fan yi liñ ciy liggéey lépp mooy programme yi liñ ciy soxla liñ ciy soxla lépp liggéey na ko ci ñeenti fan am naa defar asamaan ak suuf nee na ci ñaari fan la ko defar xalaqa samaawaati fii yawmayn fi yawmayni waaye wa qaddara fiha aqwaata fi arbaati ayyam summa stawa ila sama daal di dem ca asamaan moom foofu waaw waaw wa suuratu Fussilat wa qaddara fiha aqwaataha mboolem lu ngeen fiy soxla man fiy dund programme naa ko fi waaw fii arbaati ayam ci ñeenti fan ci la ñu pare ci lépp mboolem lu doomu aadama soxla nga xam ne bu fi bu ko fi amul dundam ci kaw suuf du mën a normal kër kër jooje dana tax ne tal jaamu yàlla parce que yàlla daa bëgg lu tal jaamu yàlla moo tax mu yombal a du gis nga wutal fekkoon ne nooy dox bëgg a dem tey Louga da nga koy dox ama boo dootale jul waaye xam nga ngay dugg rek féex dox bi dañ sot dem Mbàkke tey bu fekkoon ne da ngay dox da ngay am ci avion ngay dugg rek ay waxtu yu néew nga egg ma ne yow jaamu yàlla gi rek moo tax ñu andi la yëpp yëlaa la gàllankoor jaamu yàlla gi yëpp yàlla yombal na ko su ngeen jëfandikoo xel yi rek sunu moo tax toujours gis nga yooyu def ci orienté moo tax jullit ñi fi ne ci wàllu science ci wàllu adduna ñoo ci waroon a raw ñëpp bi ñu demee nag ba séparé jàpp ne moom alquran wala l'islam téye rek nu ñuy jullee nu ñuy jaamoo yàlla dong lay jàngale ak nu ñuy doxalee adduna boo seetee aaya yi wax sax di orienté ci wàllu science ak wàllu luy réglé adduna muy ak fuuf aaya yi nga xam ne ci wàllu ibaadu la la wa fil ardi qita'un mutajawizaat wa jannaatun min a'naab wa saraxun wa naxiil silwaanun wa xayri silwaan yusqa min maa in waaxid wa nufaddilu baadaha ala baadin fi l-ukul inna fi dalika la ayatin li qawmin yaqiluun li qawmin yaqiluun aaya yi nga gis yëpp ñuy daanee la yaqiluun di daanee la yatafakkaruun yëpp dafay orienté ci science bi ci wàllu adduna bu ko jullit ñu toppoon yooyu raw te amoon ay temps waaye nag yooyu bala ko mën a def da ngay am pouvoir pouvoir moo mën a couvrir borom xam-xam yooyu ñu tala gëstu xam-xam jamono bi nga xamante ne jullit ñi am nañu pouvoir ci wàllu science kenn nangu leen ci woon waaye bi ñu nattee pouvoir la mën mënatu amatuñu ku leen protéger ku leen yombalal ay moyens bañ mën a def ba demee ci réew yi nga xam ne ñoo wax ne dañoo développé seen borom xam-xam seen savant yay gëstu lu ñu soxla ci xaalis dañ leen koy jox ay budget lañ leen di wateel yu bare bare bare bare yoo xam ne lu ñu soxla ci ay idées ya ñuy def lu ma laaj dañ leen koy yow nag war moo ko mën waaye jël bu fekkee yow yow képp yaay fortaatu sa bopp di jéem a gëstu du sot kon jullit ñi leen tardé la rek mooy ñàkk a pouvoir bi moo tax pouvoir dafa bokk ci dafa bokk ci mbir mi waaw te bokk boo ko ñàkkee rek lu bëree bëree bëri du tëkk la bokk na ci li yóbbi nit ci pas-pas bu baaxul di wax ci yàlla lu mu xamul wala muy déglu ñuy wax ci yàlla lu ñu xamul te xam ngeen ne loolu bari fii lool waaw di wax ci yàlla loo xam ne di wax ji nga koy moomale yàlla di ko delloo ci yàlla di déggoo ko ci benn dalil bu leer moo tax borom bi ne wa in tuti aktara man fil ard yudilluka an sabilillah nee na ñi ëpp ci kaw suuf soo leen toppee ñu tànk ndax lan in yattabi'una illa zanna wa in hum illa yaxrusun nee na ñu bari ñuy wax di wax ci yàlla naan ci diine la ñuy wax nee na njort dong la ñuy wax ak it dañuy tàndale tàndale la ñuy def léegi dañuy tàkkalu neex nit di rek nit dañuy waxal wala këleen laaj luñ jàpp ne looloo koy war a satisfaire ñu waxee ko noonu nee na ñooñu nag boo leen toppee da ngay sànq bokk na ci yii tax itam nit ki pas-pasam du baax wala pas-pasam doye bi mooy roy royu gubba roy royu gumba xam gumba moom dañ koy womma rek xam fu ñu koy jaaral soo yoroo nit da ngay am dalil li muy def dëgg la ci moom nga ko gisee waaye bul doy ci gisa gi rek na la wax fu mu ko jële na la wax suuf suba fu mu ko jële ndax moom fenn ko daal fu mu ko jële ki nga gis mu julli ba pare bu na ko rek gis naa la ngay julli julli da nga naa ko julli fu mu tege mu wax la aaya bi digle léegi kon jëleetoo ci moom julli ci yàlla nga ko jëlee ndax jox la la aaya melokaan rek nag jàngee nga ko ci moom da nga koy jàngee ci moom waaye jëlee woo ko ci moom waaye ñii wax ne bal wajat na abaana kazalika yafaluun xam ba mu laaj yi xelam yi ngeen di jàmm lu muy jëriñ ñii da ko doon dal xamuñu lu ñuy jëriñ mu ne wax kon fu ko teg ñu ne dañoo fekk suñuy bàyyi di ko defal ñu bari bari bari tey fi mu ne li ñuy def soo leen laajoon dañ naan rek loolu daal dañ ko fee fekk bal wajat na abaana kazalika yafaluun liñ fekkoon suñu bàyyi di ko def daal ñun loolu la ñuy def bokk na ci yàq pas-pas itam nag ëppal ci ay nit ëppal ci ay nit weesale leen seen cër bi nga xam ne fa lañ solo qul fi diinikum suñu borom def ne waxal ahlul kitaab yi di jiitu woon bu leen dangal seen diina bi ci wala tattabiu arwaa qawmin qad dallu min qablu wa adallu katiran wa dallu an sawaai sabil moo tax ki nga xam ne nag nit ñi dañoo war a dañ koo yaakaare bu bëgg ëppal ci moom mooy wàcce boppam boo gisee yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom naan ko waxal parasanteer sa bopp nga xam ne ki nga xam ne xamoo garaatam soo ko parasanteer bootul juum ñi am militaire ñëwoon tey boo xam ne ñun xamuñu ban garaat la am ah bootul boo ko waxee garaat bu gën a suufee bi mu am mën na laa daal di mere ci saasi waaw man may général nga naan mag colonel wala capitaine moo tax yow da ngay dalee fa gën a kawe rek moom mooy waaye yow da ngay a kawe bu ñëwee rek ne a mu ne ah man kat eggaguma ci man sept cent la wala <laughs> waaw kay waaw ah kon baax na waaye boo tëboon ne ko sept la boo tëboon nga naan la sept moo tax nit ki mooy wàññi moo tax yonent yi itam nit ñi daal leen aj ku baax nit o dañ koy teg ca kaw waaye nag mooy wàcce boppam nag waaw nit ki doon wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan ko maasa allah wa sita mi ngi aj yonent bi kawe ne ko bu soobee yàlla soob la jàpp ne mooy ak soobee yàlla jàpp ne yonent bi ab soobee yàlla waaw parce que bëgg ko manqué doon yonent bi daal mer ne ko aja al tani lillahi niddat yow dañ ma bëgg a def boroomam yàlla bal maasa allahu waxda sobee yàlla képp loolu la ñuy kon képp koo xam ne ku ñu yaakaari diine bi nit ñi bëgg a ëppal ci yow kii ëppal moom dafa xamut yaa koy jubbanti waaye su waxee nga confirmé naan ko waaw sallaaw xëy waaw mbir mi weesu na kooku ah, kooku koy kooku da koy gën a yokkaat bu ëllëgee boo tax da wàcce moo tax gis nga yonent yi bañ leen di xeeb naan waaye nit nit ay ay nit dong la xam nga ñu bari boo ne leen nit dong nga ñu mel mais yonent yi bañ leen ne nit dong dañu nit dong lan in nahnu illa basarun mislukum qaalat rusuluhum in nahnu illa basarun mislukum nun nit leen dong comme yéen walakin allaha nag yamullu ala man yashaau min ibadi waaye yàlla nag mooy baaxe ku ko soob ci jaam ñi tànn ko jaarale ci moom li muy wàcce mu dottali ko moroomi jaamam waaye nag nit dong lañ comme yéen yonente bi alayhi salatu mu ne ko xool innama ana basar mislukum waaw ñu bëri moom boo ne dañ nit ñeewam ñu ne wala di nit dong la moom nit ñeewam ñu ne yow da nga koo xeeb lu tax nga naan nit dong ko ah kon loolu ñooñu ñoo ko war di waxal seen bopp di leeralal nit ñi fi ñu toll bu ñu bëggee juum ci teg leen ku ñu wër te tege ñu korite loolu da di nga ci ëppal ba naan Usayru ibnullah yahud yi lañu wax nee na ku ñuy wax Usayru ñu ne doomi yàlla waxaalati nasaara almasiixu ibnullah xam nga loolu dafa suñu borom ne dalika xawluhum bi afwahihim nee na day ñoo ko wax ci seen waaye yàlla waxu ko moom ñooñu jaamu yàlla la waaye boo ci pas-pas yi ñiy lislaam am na ci loo xam ne sax gën naa foor diwee doomi yàlla waaye diwee yàlla la xam parce que ent nañ ay tur yoo xam da ngay dégg ñoom ay xutbu ay xawsu yooyu doo ko gis ci alxuraan doo ko ci sunu xutbu li muy tekki mooy ki dominer adduna gën gi ñu dëbbe kuur gi ni mu mel ci biir gën gi nga xam ne pepp bu jóg mu dóor la nga tëddaat ba nga mokk xawsu mooy kii xett li ñëpp nga xam ne boo doon lap ci biir géej ga moo lay xett waaw te yonente bi moom doonu ko ndax yonente bi bañee ca xaret Badar ba suñ borom def da istastaqiisuuna bi rabbikum fastajaaba lakum keroog ba ngeen xettali koo yàlla yàlla xettali leen bi nekku foon boobu ah ab bu doon xawsu du leen xettali yonent bi nag doonul xawsu nag nga ne ab da ko doon xawsu koo xam ne mooy xettalee kon fas-fas yu mel ne tur yu mel noonu ku ko fas moom ña doon wax diw doomi yàlla la yow weesu nga doon mais da nga ne diw ay yàlla far parce que la yàlla doon def moo te mooy bi ci mujj kii nga xam ne dana yàq fas-fas wala mu di ko doyadil mooy nag soxlawoo adduna ba sa xol mujj nekk jaamu adduna la yonente bi alayhi salaatu wasalaam naan taisa abdu dinaari wa abdu dirham taisa torox na jaamu dërëm ki nga xam ne nee na jaamu dërëm la dërëm ay buuram xaalis rek la jël taisa abdu dinaar wa abdu bi wa taala inna anzalna al maala li iqaami salaati wa itaai zakat suñu borom nee na alal dama leen koo jox ngir ngeen mën a taxawal julli mën a joxe asaka maanaam ngeen am facilité tellement jaamu moo tax ma indi fi alal waaw mu ne walaw kaana libni aadama waadin la ahabba an yakuuna ilayhi saani mu ne doomu aadama bu amoon xur wu fees dell ak xaalis nee na mu ne su ma amoon xuru ñaareel ba yokk la ci walaw kaana lahu waadiyan la ahabba an yakuuna ilayhi ma saalis bu amee ñaar ne ba ma amoon ñetteel wala yamla u jaw fab ni aadama illa turaab mu ne biir doomu aadama fii suuf doo nga ko mën a fees suuf doo nga ko mën a fees waaye leneen loo ca def bu ëllëgee mu ne su ma amaatoon fitnay alal nag yonente bi alei salatu wasalaam wattandiku loo nañu ko nee na maa zibaani jaaan ursila fi xanamin bi afsada laha min xirsi lmari ala almaali wa sharafi li diine bëgg daraja ak bëgg alal nee na ñaari till yu ñu xiifal dugal leen ci gépp xar ñu fanaan ko ba suba nee na lekk bëgg alal ak bëgg daraja di yàq ci diine ñu kilo yooyu duñ ko yàq ci gétt googu waaw ñaari kilo yu ñu xiifal bay xiif ñu dugal leen ci gétt xar wala gétt bëy tëj leen fa ba suba te dañoo xiif xam nga doon bare bare bare dañ ko xam waaye nee na bëgg alal ak bëgg daraja li mu yàq ci diine nit ki du tolle li kilo yooyu ya bari na ñu jàng lool bari na ñu am xam-xam lool waaye ñaar yi ci lañu muccut bëgg alal ak bëgg dara bëgg ku leen teg ca bëgg mbooloo mu leen topp bëgg seen tur siiw yii soo ko xasee bëgg bëggi alal jooy am lépp luy teraange ak dëgg ëppale ko nit ñi loolu booba mënatoo koo booleeg sa diine di mën a rafet sa diine dutu mën a tee si ñu xool ba ca tegu nag mooy tóolul abal mooy nag mébét yu gudd projet yu dul jeex te yow yoroo yow benn projet àllaaxira projet adduna rek bu ma abee lii bu ma abee bu ma abee lii moom la borom mi naan darhum yaakuloo wa yatamattaau wa yulhihimul amal fa sawfa yaalamun nee na bàyyi leen ñuy lekk ka naan ka bànneexu mébét yi muy seen projet yeeg seen bëgg-bëgg yi nee na moo fab bi xel ba te lu ñoo jaamu yàlla nee na dañ dul jóge ci adduna moo tax yonente bi alayhi salatu na ne woon a axwafa ma axaafu alaykum ittibaaul hawa wa tuulul abal mu ne li ma gën a ragal ci yéen mooy topp bànneex ak mébét yu gudd waxuñu nag ne bul am yu mébét bi nit dana am ay ambition am lu mu bëgg wax jërul muy gudd ne muy gudd na yem rek ci fi nga toll waaye mébét yoo xam ne leeral na féeg ñaar fukki at loolu kenn du ko fi mën a réaliser te téewul rek nga teg ko ci la xel rek dox jëm ci xalu jullit waru ko def jullit ay projet yu koy gën a jegeñal ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala yooyu la war di teg nii ngi ni dugg at moo xam ne atum lislaam la bu bees jeexal am at war a fogalwaat war a tuub tëje at ma ne ak tuub ñaan borom bi tabaraka wa bu jéggal luñ ci def ay bakkaar waaye nag ñu takk war nag ci at ñii kenn ku ne nga comptabiliser sa mbir ndax man kuy naa fi na guddi laa dafa comptable comptable comptable évaluation comme ni borom bitig yi di tëjee seen bitig ne la dañuy inventaire day jaayulu yow itam nag war ngaa inventaire sa diine def sa bilan ba xam waaw wal tanzur nafsun maa qaddamat li xadin bakkan bi na xool lum dawal ëllëg nga natt sa bopp ndax maa ngi matale julli juróom yi loolu ci mën a góorgóorlu ba di ko def ndax maa ngi naafila guddi ndax maa ngi woor koori sunna yi

nga musique ndax ndax loolu yaroo ko nag waaye faw dañ may dëgg la man bu ma tàmbali jëw waaye dañ ma ci yóbbaale dañ ma ci yóbbaale yooyu itam nit ki da war a xool boppam fan la ci toll su ko defee nag mu gën a yokk góor góorgóorloom lu mu daawul def man ñaata lay jàgg ci alxuraan kan nga gëj a wàcce kaamil alxuraan kañ laa ko a wàcce ndax at mi jeex wàcce naa fi kaamil waaw ah, waajal sa bopp loolu at mi jeex ndax jàng naa fi kaamil bi ba mu jeex seet loolu nga xam su fekkente ne xëy na yow jàngoo alxuraan ji lépp itam ba man koo jàng bam jeex waaye ñaata laa fi dolliku daaw fi ma tollu woon ci alxuraan ak fi ma ci tollu tamit ak fi na ci alal da ñaan fi nga tollu woon daaw ne nangam laa amoon am naa lu ko li ma mënul woon daaw mën naa dara waa alxuraan li nga ci woon daaw fa nga ko fi nga toll ba tey rek fekkee fi nga toll da ngaa war ne fi ma toll woon daaw ci alxuraan ren toll naa barab sàngam fasoo naa déwén ak jàmm bu ma ko fekkee dinaa egg barab sàngam bul demante egg it bëggoon nga ko ndax borom bi nee na wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi summa yudrikahu al mawt faqad waqa ajruhu ala allah soo jëlee engagement boo xam ne ci yàlla la jëm di wut ngërëmal yàlla jël engagement dama bëgg a mokkal alquran jël engagement dama bëgg a mokkal nangam ci ay hadith dama bëgg a jàng téere sàngam ci wàllu aqida su fi yëggul itam te gàllankoor ba fa tee yegg moom di dogal bu yàlla dogal ci yow borom bi nee na tuyaaba ja moom dama la koy bindal kon nag nañu góor waat bu baax a baax a baax rafetal suñu jëflante te xam ne mooy mandargay suñu pas-pas bu wér yàlla kat suñuy fay ñett yooyu yëpp lay boole calculé suñu pas-pas nu mu meloon suñuy jaamu yàlla nu mu meloon suñuy jikko nu mu meloon surtout jikko yi nag mooy li nga seqal nit ñi pas-pas moom sa diggante ak yàlla rek ak jaamu yàlla am maa nag say jikko nag mooy li la boole nit ñi ci ngay tooñ nit ñi ci ngay jëriñ nit ñi say jikko li ngay defal nit ñi ci nga leen koy def li nga leen di defit ci nga leen koy def kon nag ñu góorgóorlu ci jikko yi mu rafet yàlla na ko suñu borom tabaraka wa taala defal may nu pas sax bu wér ñu dund ci faatu ci dekk ci wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain